jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ni yéen faral di seetaan seen chaîne bi di Vital TV la chaîne qui vous propose tout ce qui est vital chez vous ñëwaat nañ ak yéen seen émission bi nga xam ni moom mooy samp laaj ngeen miin à chaque fois ñu di si ànd ak ay autorités si dëkk bi ay activi ay activistes si dëkk bi ñoo xam ni si développement dëkk moom moo leen yitteel yaakaar naa ni nag émission bu ngeen gisee mu continuer ça veut dire que sentir nañ ni yéen a ngi ci yëg njëriñ moo tax ñu def ko tey nag dañu dal gan koo xam ni dara si ginnaaw buñ doon turam kenn ku ne danaan kan la waaye toll nañ fo xam ci si nag man lolu kon nak eh, dama koy eh, nuyu rek bàyyi ko moom aussi mu ñëlen muy monsieur Ndiaga Ndiaye monsieur monsieur le maire ma ngi lay nuyu. waaw mustapha ma ngi lay fay. tay eh, wa Vital TV ñew ak yow daje yow fi ci campement de Niayes fas yéene waxtaan ñu bàyyi la nga nuyu internet ak téléspectateur yi. waaw merci beaucoup Moustapha xana nga may rek mo leeral ni bërb bi nak daf melni ya ko tan ñu nangul la ko parce que gis nga ni c'est un cadre quand même qui est attrayant et que def fi émission gën na peut-être dafé ko feneen. et ñun aussi ñala ko nangul parce que ñun nak wa bërëb bi dañoo am luñu ñu euh di également profité ci émission bi di leen remercier mais également di leen delloo njukkal ci liggéey bi nga xamante Vital TV mu ngi koy def euh, par rapport ak la promotion de la presse locale. donc di liggéey bu am solo bu ñuy rafetlu di yaakaar également émission bu ñu nar a séq tey ji mën yow dina jur njëriñ askanu mbor inshallah inshallah kon yaakaar naa ni euh, monsieur le maire moom moo nuyoo noonu. ci sànq nag bi ma ubbi dégg ngeen ma wax ni nekkatul ku ñu présenté waaye xëy na aussi donte des na kenn sax kooku noonu mën na xamagu ko loolu moo waral rek foofu la ñuy tàmbalee émission bi daal di koy laaj rek euh, monsieur le maire ñu bëggoon a xam rek te boo ñu doon defal une petite présentation rek très résumé rek euh, ci kan mooy Ndiaga Ndiaye lan nga koy wax. waaw merci beaucoup Moustapha Ndiaga Ndiaye euh, nekk na ku juddoo ci dëkk bi di Mboro màggee fi yaroo fi ba mu juddoo nag dal na fi école école arabe bu Pa Serigne Diallo jóge fa daal di dugg école primaire bi Djamgene, gën ndaxte ñoo nekkoon la première promo bañ fa jógee it am suñu euh, certificat euh, ci la ñu yóbbu lycée bu Mboro donc ñu def ay at daal di am suñu bac donc ñu ngi fi am bac en 2004 euh, bañ fa noppee aussi ci la dem daara ju kawe ji nekk Ndar muy UGB et am fa également suñu master 2 ci anglais mais également tamit ci wàllu communication. loolu moom mooy sa présentation ci côté jàng côté jang loolu nga ñu mëna wax est-ce que bo ñu mënoon duggal ben fan laal ci tuuti rek lan nga ñuy wax. waaw ci gëna a wér gi moom mooy xëy suñu sunu parcours. te boobu tamit dina dañ également dugg ci wàllu njàng mi parce que ba ñu nekk ci lycée bu Mboro quand même euh, ñëpp xam ne ni ñoo nekkoon président du club d'anglais yàlla def ñu ci yooyu jamono ñu bokkoon ci benn festival régional daal di jël paie mu nekkoon ndam lu rëy pour Mboro ndaxte c'était notre première participation à ce festival là kon ñun dañu yàgg xëy na peut-être nekk ci école bi ci wane suñu leadership et puis tamit sunu moom diñu ko nangul bañ fa jógee également tamit ñu ngi won ci étudiants yi nek fa également président amical bi nga xam mo nekkon moo nekkoon étudiant ressortissant de à l'UGB jité dañ ko fa également tamit nopp fa également daal di jité le premier collectif bi nga xam mo le moo lepp luy étudiant euh, bawo ci daara yu kaw yi nekk Ndar yi nekk Dakar yi nekk Thiès Ziguinchor ak euh, Bambey bañ ko njëkkee mettre en place en 2009 yàlla def na maa njëkkoon nekk le premier coordinateur. waaye tamit nag ci wàllu gën aussi tamit sur le combat citoyen bokk nañ ci ay kuréel yu ci mel ni SOS Mboro te yaakaar naa ne kuréel boobu ñu bëri ñu xam woon ci yooyu jamono nag xam nañ nag lu bëri tamit macha allah. d'accord kon euh, yaakaar naa ne mën nañu doyloo lool nga xam si moom la monsieur le maire def ci wàllu présentation waaye nag bu ngeen seetloo benn affaire présentation bi daanaka boo xoolee fu ñuy dëddale politique rek la la nekkoon milieu bi ñuy jàngee. ak plateforme Mboro SOS nga xam ne moom moo ci gën a raw moom bu ñu waxee rek ñu ni plateforme c'est apolitique <laughs> waaye ñu jékki rek ñu gis monsieur monsieur Ndiaga Ndiaye jaada ci politique bi vraiment bëggoon nañu xam les raisons da nga fi gis ay intérêt économique nga dégg ñu ni politique dafa am xaalis nga dugg si wala wala wala comme lan daal lañ bëggoon a xam moom la poussé ba tax nga jadd ci yooyu noonu yëpp daal dugg si politique bi. bon pas intérêt quand même xam nga lu tax c'est-à-dire que li ma la fi wax sànq ci ay kuréel yu nekk fa di ko jiite li ci ëpp. Mhm. Euh, muy lycée bu Mboro ci jamonoy club d'anglais ba. Mhm. wala boog amical étudiant yi nekkoon Saint-Louis wala boog collectif des étudiants wala boog SOS Mboro bi ñu nekkoon chargé de communication yooyu kuréel effectivement xalaatuñu ne woon ay intérêt yu taxaw ñu doon am ñun moo waral loolu ñu suñu engagement ci yooyu mbir la ko waroon rek mooy ay défi ay problème la ñu fa fekkoon ñañ fa ña ko seexaloon xalaatoon ni ñun suñu jëmm ji bu ñu ko porté mën na indi ay résultats et on l'a fait donc de manière très désintéressée donc qu'est-ce qui a expliqué ce virement effectivement c'est une bonne question ndax jàpp naa ni euh, yoy kuréel yu am solo la te te lu war di am la mhm. mais nous considérons également que dañu am ay limites objectives mhm. euh, et on a pensé qu'à un moment li war li war def donner un prolongement concret à notre combat mhm. Et bo prolongement concret bi ci gëna fess bi yaakaar mo gëna tané moy am engagement politique Ce que nous fa c'est que ko nocc ci bir dëkk bi ñu war fa les personnes compétentes mais vraiment très crédibles aussi donc lolu mo ci duggal donc pour saafara ay problème là, mais du pour sinécure parce que dañ koy gis rek comme ben fonction sacerdotale manam sacerdoce lañ fa gis mais pas luñu wara war a wala lu kenn mën jëri mais ñun ñoo yaay laaj la question bo parce que bu fekkee ni yow mom politique bi sa mission moy da nga bëgg servir nit ñi té plateforme RSS ku ko xam-xam ni bi nga fay nekk yéen ngi doon servir nit ñi parce que ñu ngi gis plateforme di organiser ay ateliers de formation di def ay activités citoyennes mo xam euh, di jëmbat ay garap wala di set kon yaa ngi doon servir nit ñi mais pourquoi nga jékki-jékki ni il faut nga boole politique xana dafa am leneen lu ko lal. waaw mooy li ma wax rek xam nga j'étais pas de limite objective. Hmm. yooyu kuréel xam nga ni. plateforme bi intérêt la wax est-ce que gisoo ci intérêt. parce que bu fekkee servir nit ñi rek. ah mais plateforme boo si nekk yow yaa ngi servir nit ñi. mais absolument mais dama ne la dafa am ay limites objectives yoo xamante ne service bi mënul egg ci yenn niveau yi. d'autant plus que yow xam nga ni plateforme bu ñu ca nekkee li ci ëpp lu ñu doon def c'était pour revendiquer c'était pour peut-être dénoncer mais fallu le maire par exemple pour me dénoncer cassé je pense dañ ko fal mooy pour mu avoir un bilan parce que dañ ko jox un budget moi c'est siy à askan bi donc dañu comprendre que un moment pour ñu gëna amul amal njariñ askan bi fa ñuy jëlee mbiru askan bi da ko fa décider loolu lañu gëm ni foofu la wara war pour mën effectivement. ñu comprendre dal da nga dem ba trouver ni Mbor Mbor SOS dafa am ay insuffisance pour pour que pour que pour que nga mën matal ni nga nga. c'est manam. c'est des limites qui objectifs qui sont inhérentes à toute euh, à toute initiative citoyenne. bépp kuréel boo xamante ni ci wàllu citoyenneté li ci lay liggéey effectivement day am ay limites maanaam mënoo leen laaj yenn yi parce que du moom loolu moo seen ay cër du seen ay war war gar ni nga bëgg a servir daal pour nga il faut jàpp nga il faut rek daal nga dugg si absolument absolument kon yaakaar naa ni kon euh, loolu leer na loolu moom mooy li mu wax ni moom moo ko dugal ci politique bi ba tey suñu ay question ñu gis ni yaa ngi jëm ci élection yi te élection yi majeure partie ci candidat ñu gis euh, en coalition la ñu demee xamuñu kenn koo xam si beru na fi briguer un mandat ñu bëgg a xam yow ñan nga àndal pour dem ci élection yi. waaw bon euh, da nga may may rek ma wax ni gëm naa ne du ñëpp am coalition aussi ci nekkanda daa am war gëm naa du ñëpp ñu am coalition aussi yow journaliste nga dama lay bàyyi nga def sa l'enquête di nga xam kan moo dem coalition ak ñan ñoo demul en coalition. Euh, ñun nag coalition effectivement lañ formé parce que mën nañ cee lim juróomi parti wala boog juróomi leer yoo xam te xam nañ ne ci wàllu langue politique bi am mbooro ci nekk ci ñoom mënoon a am sañ-sañu am yéene jiite dëkk bi te kenn ko ko lankal du ci xam-xam bi nga koy xeebe du ci crédibilité du ci également bëgg defar mboor kon ñooñu ne bu ñu toogee manko créer ab coalition effectivement ko loolu c'est une coalition parce que foo mënee lim UCS bu Abdoulaye Baldé mën fa lim FSD/BJ wala Grand Parti bu Malick Gakou nga mën fa également lim tamit ki nga xamante ni mooy RV bu Thierno Alassane Sall wala bokk une partie sax laay wax sax du réew mi nga xamante ne ki ko jëlee di sama rakk ji nekk Japon di Samba Ndiaye donc muy ñoom ka Diassi donc Pape Mohamed Diop Ibrahima kan Diassi Mboup di ay leader toog ñu nii dañuy créer une coalition bool ko également man li nga xam ne moom laa jiite muy mbooru dëbbu donc jàpp effectivement donc loolu mooy composé la coalition gox yu bees yi nga xamante ci yooyu bannière lañ nar a fas yéene bokk ci élection incha allah. donc coalition bi moom ci élection locale yi nii ci la judd mais nekkul woon lu yàgg auparavant. ah ben ni li ko li ko tax a jug kay ñëpp xam ne c'est c'est une coalition électorale parce que ci élection lañ ñëm donc on a combattu cette coalition pour mën a dem ci élection yi. mais coalition bi kon est-ce que yéen jàppale ni seen doole dina xaw a néew pour ngeen pour ngeen fexé mën gagner un mandat parce que bu féké da nga jékki-jékki rek moins deux an nga créer ci coalition est-ce que temps de massification bi dina fi am pour pour. c'est la plus verte bo ci gagner la coalition benn mbok yakar xam nga coalition benn mbok yakar sax da ngay xamni sax ni ma structuré am Mboro parce que dama amé au niveau national du fait effectivement la amé am Mboro am Mboro xam nga ni euh, sabar gu tas la ku nek awna fi nga aw pour yak pour dem ci ci élection yi mais ñun coalition bu ñu formé ci coalition yi dem ci élection ñoo ci gëna yag

mais yow ñi nga lim fi ni yow xam nga da nga yow yaa ngi considérer yaa ngi réfléchir ci logique élection présidentielle yaa ngi may tëral ay Pastef yaa ngi may ay PUR yaa ngi may waaw laisse-moi terminer rek c'est-à-dire que boo ma tuddee yooyu yooyu yooyu parti mhm. gëm naa ne nga sa réflexion c'est plus porté au niveau national qu'au niveau local non mais xam nga xam naa li nga wax mais xam nga xam nga lu ma la bëgg a wax coalition bi ñi ko séq tur yi le fait que ñu ni Pastef ànd na ak PUR ànd na ak taxawu Sénégal yamul ak ak ñi nga tudd ñi nga tudd sànq seen kuy. moo tax ma lay wax au niveau national. mais moom moo wàcc xanaa xam nga grand parti ki ko jiite. xanaa xam nga FSD/BJ ki ko jiite. xanaa xam nga UCS ki ko jiite. xanaa xam nga ko jiite. mais parti au niveau national également. mais loolu c'est au niveau national nag loolu laa la a loolu laa la bëgg a préciser. li nga li nga wax ni ñi nga seqal ni man ngeen am doole fii nii ci dëkk bi. absolument voilà c'est-à-dire ndaxte dañuy dem ci ay élections locales. lépp ñu ci logique élection présidentielle. Mm-hmm. soo tuddee effectivement parti bu mel ni PUR war nga tuddu ku ci melni euh, PASTEF kenn du natable sen doole au niveau national mais mais au niveau local c'est tout autre chose hein. donc loolu rek laa bëgg nga intégrer ko ci sen analyse té ngeen xam rek ni la coalition gox yu bees bi ñu porté ñun ci coalition yi gëna a ci dëkk bi ci bok ci élection yi c'est lañ bok d'accord légui léegi euh, coalition bi yow lañu samp pour nga jël dëkk bi. ñu bëgg a xoon ñu bëggoon xam yow nan nga def ba jiite ko da ngay def congrès wala dañ jékki-jékki rek njag daal nekk l'ami de tout le monde kenn ki noo njaga sama boy la kii njaga sama copain la ñu daa koy wala njaga comme nan daal nga def ba jiite. bon loolu question boobu peut-être sax gënoon a précis mooy nga laaj ko ñi xam ne ñoo ma wóolu jiite ma mais li ma xam rek mooy mhm. euh, ay nit la ñu ñoo xamante ni yu yu mbooro am ci ñoom yaakaar lañu. Mhm. ay nit lañu ñu am xam-xam. Mhm. ay nit lañ yu maanu yu bëgg seen dëkk ñàkk ci de seen bopp rek moo tax effectivement ñu tànn keneen ci ñoom. léegi dama bëgg xam ne nan la ñu la jiitale yow. critères yi dañu non on a parlé sur les critères et que les gens ont jugé que peut-être man je pourrais porter mieux le projet. et effectivement on l'a fait. amul kenn ku ne ci coalition bi koo xam si dafa bëggoon laaj ni yow. ni man absolument amee ah, xam nga tamit ambition moom bu ñu nekk ci ab kuréel kenn rek am ci ambition c'est inquiétant ça pose problème donc li normal mooy ci benn groupe ku ci profil bi exister exprimer plutôt son ambition et ça a été fait mais quand on a exprimé nos ambitions quand on a discuté avec les que gentleman on a compris qu'effectivement tout le monde ne peut pas être candidat et on a mis Mbora en avant et mettre en en avant a fait qu'effectivement ils ont fait le choix sur ok quand yow tu dañu le ni yow y choix bi idéal bon l'idéal bon je j'allais pas dire mais en tout cas ils ont trouvé si on trouvait que si nous sommes nag quoi qu'on puisse dire ci critères yi gëna pertinent quand même pour tànn fi un leader gis ñu keneen candidat ci yeneen liste ko xamanteni ne yaa ngi gën a remplir. d'accord et que ñoom ils ont vu ça et effectivement ils ont apprécié comme ça. très bien léegi euh, ba tey rek dama bëgg euh, poser benn question boo xam si xam nga ñi ngi wax depuis boobu ba léegi ñu ngi tudd coalition bi donc ñi ngi tudd am ñuy àndal mais dama leen bëgg a seppi ñoom ñëpp teg leen ne ñëw juste rek ci yow individuellement Ndiaga Ndiaye Ndiaga Ndiaye ah est-ce que am nga base politique ici à Mboro xamaguma base politique hmm. xam nga base politique dafa am lu la koy lu tax nga mën ko wax hmm. je pouvais effectivement voilà, ma comme tous les autres hein hmm. dire que base politique ndax gëm naa ne gisuma benn candidat bu ma gëm ne yow yaa ma ëpp base politique mais est-ce que fa laa ko est-ce que dama gëm naa élection je pense élection yi jëm maanaam ci tàkkusaan wala boog ci timisu 23 euh, janvier réponse bobu noonu ci lañ koy indi inshallah c'est vrai même même même même ki japp ni sax amna base politique il faut mu xaar élection jàll mu soog ko mu soog ko wër parce que dañuy compte ay voix mais y a des choses yoo xam si nit nit ki dina ko xam avant avant dara di xew Ousmane Sonko par exemple avant muy dem élection xamoon nañ dina am dara n'est-ce pas Idriss Seck aussi avant muy dem xamoon nañ dina am dara donc am na loo xam ne si nii. Hmm? Moustapha man weesu naa fu may toogee di xam ni bëggoon a xam nag parce que yow yow comme ça nan nga ñu mën expliquer sa base. am nga par modestie rek hmm? ku ko ay nit yooyu ma la wax xool jiital la bu weesoo compétence crédibilité également am na capital boo xamante ni sympathie boo xamante jàpp ne am ko am nga une base affective bu la mën a permettre nga gagné ndaxte élection compétence yi day tax nga mën a diriger mais nombre bi mooy tax nga gagné te nombre boobu noonu mooy base que yooyu noonu déjà suñu xalaatu woon ne suñu jëmm ji am nañu base bu ñu war a mën a ñu mën a gagné le combat effectivement dañu porte sama candidature alors. xam nga base politique bi bu ñu koy wax.

on aura une réponse à cette question mais bon un peu essayer de faire preuve de modestie donc ça veut dire que ça sous-entend que yow C'est base. absolument. c'est la c'est la base plateforme c'est apolitique. c'est je l'exemple de Sonko. Euh, texte effectivement bamuy jël élection yi troisième e ñi mu fété kanam ak nombre de voix bi muy am ans donc question de durée quoi c'est la qualité de ta présence nit def na fi 18 ans de politique monsieur am 500 voix nit def na fi politique un an plus de 500 voix donc la durée n'importe pas beaucoup pour man li ëpp solo la qualité de ta présence sur le terrain sama je le dis avec beaucoup de modestie quand même mhm. Si nous présence sur le terrain même fait que yàggul nag mhm. mais ça a fait ce que ça a fait donc si bi nga des gens qui ngi koy wax sànq ne ay jamono xëy na ku doon présenté dañuy di naqaree dina ñu am ñu ñu xam mhm. mais là il y a effectivement les choses où on peut changer il tax changer effectivement la présence sur le terrain sa qualité surtout d'accord Légui, par exemple comme tu l'as dit, gis ni njàgg illustré wu na ci par exemple rek Dakar avant élection yi toxu taxu si fii nii damaa bëgg a ñëw seen candidat yi daal léegi man Mboro laay voté daani ñëw rek daani par exemple njaga bi su ma ko bëggoon a votel fan laa war a mën a basé wu ci moom ni kii illustré wu na fa war naa ci mën a war naa ci mën a sukkandiku ba ni kii daal moo ko fale dina jiite dëkk bi waaw bon xam nga ku nekk day apprécier différemment mhm. une personne voudra peut-être voter pour Ndiaga Ndiaye parce que c'est son voisin c'est son c'est son ami mhm. nit dina voter Ndiaga Ndiaye parce que yëg na gis na li muy am taxawaay bi mu am ci askanam mhm voire même au delà nous, quand engagement parce que si nous ni am na des ñu qui ont am ay jafe-jafe ñoom ñu yaakaar ni suñu nous jee buñ ca ñëwee taxaw wax si am hésité pour le def qui nit effectivement ay nit na quand di ji wax euh, vraiment ñu exprimer soutien mais également tamit seen euh, à tous les niveaux aussi donc nit ñi ko ci nekk mooy apprécier mais li tax effectivement Ndiaga Ndiaye am peut-être cër bi mu am ci langue politique bi gannaaw sax bu mu ci mooy dafa lu ñàkkal yittey kenn amul kenn kuy nekk ci ay jafe-jafe ci dëkk bi euh, ci fànn gu muti nekk wax ma nag jamono élection am ñoom te ni seen yitte dañ ko câble ci ay élection bu jeexee jeex na ñun dañu yaakaar ni askan bi boo leen mën a jàppale doo ko utal ay waxtu dañuy dañu gëm ni jamono ju nekk askan bi ñu nekk ci ay jafe-jafe kon jamono ju nekk dañoo war a gis nga nekk à côté si seen wet pour mun leen ne taxaw utal leen ay saafara seen ay jafe-jafe. d'accord kon yaakaar naa ni euh, mën nañu procéder jëm ci beneen question bi nga xam si moom la ñu ko bëgg laaj. ku dégg li mu li mu li mu li mu li mu tënk mooy que ni am na ñoo nga xam ne si nii xëy na tey bu ñu bëggoon a ñëw votel ko bu ñu bu ñu juste gëstoo par rapport avec fi mu jot a jaar rek du ñàkk yu ñu trouvé yoo xam si dinañ ci mën a basé wu pour pour mën ko votel loolu rappeurs yi def xaw nañ ko ci sentir clash <laughs> moo tax ñu bëgg ñëw ci question bi si topp bëgg a xam yan façon type de relation ngay entretenir ak sa ay morom autorité ne fii si clash parce que jot nañu dégg nga ni am na ñoo xam ni seen ay sen ay euh, doxalin daal sen sen dugganteeg nit ñi dañ koo câble juste ci élection mais yow sa bos donc ko def avant élection et aussi après élection n'est-ce pas. mais loolu mais loolu Sénégalais yi ko wax sax de manière générale. ñoo mais man instant bi sénégalais man bima togal moy ndaga Ndiaga ci mom la ko dégg man benen sénégalais bi wax tamit man lolu mom ndaga la togal instant man mom la déglu. allez-y donc ñu bëgg xam yow yan façon relation ngay entretenir sak ay morom autorité ni ci dëkk bi comme par exemple euh, y a des politiciens ici par exemple man ci lim comme ay Cheikh Cissé ay Malick Diop ay Alpha Sow ay ay docteur Dieng ay Abdallah tal ay wala monsieur Djibiat ñoñu noonu nga seq làng gi yan façon relation nga entretenir ak ñom xiro nga yow la wala cheikh diam <laughs> que gars yi am ci benn relation rawatina ay relation politique mhm. seulement il faudrait peut-être ñu xam rek ni mhm. euh, liñ ci xalaat ci suñu ay relation avec la classe politique locale mhm. yàlla def na ne téere certainement sax dina bokk say question yoo xam te ñu ngi koy bind daanaka sax pare dañ ko lu ci bëri dañ ko ci fësal donc damay ñaan rek ñi xam te ñoo bëgg a xam yan type de relation lañ am ak langue gi ñi nekk ci langue politique gi mais ñaan ñu patienté tuuti rek ay semaines euh, yu néew néew néew rek incha allah mhm. su ko defee bu téere bi génnee rek bu ñu ko jàngatee rek mhm. dañu mën a comprendre bu bout en ku ci nekk ci ñoom lan lañ seq ak moom mais dëkk bi la ñu nekk ay journaliste lañ xam nga ni suñu nopp fenn fu ne la ñu koy dugal suñu bët fu ne la ñu koy teg gis nañu fi name euh, comment dire nuñ koy waxee ci sax euh, gis nañ fi am militant bu bu taxaw ci wetu candidat ñom ñu nekk en pleine euh, je sais pas meeting la woon xaw ma mu tudd sa tur wax ni yow da ngay nekk di wër di yalwaan di di di di di encaisser juste loo xam si moom nga bëgg campagne Moustapha dag may may rek ma regretter souvent mm-hmm. yéen yi nga xamante ne dégg naa sax ay nit di ko commencé naqarlu

jàpp naa ni on peut quand même parce que Mbour na dëkk bu rëy te dañ ko dañoo seqal langue bi suñu ay kilifa yoo xam ni ñoom li ñu wax ñun maam ñun mën nañu assumer les charges de maire ci ni koy utee rek war nañ mën xam kan moo mën a am charge yi ak kan moo ko mënta yor donc damay lancer un appel encore une fois rek au calme ñu ànd ak dal ànd beaucoup plus de sérénité ànd beaucoup plus de courtoisie

da nga wër ci dëkk bi di ñaan amlo millions pour am lo financer sa campagne lool noonu mom est-ce que sax ñu duñ ci taxaw tuuti parce que Ndiaga Ndiaye est-ce que mom amna carrément lu mu lu mu lu mu lu mu wër di financer campagne am est-ce que tamit neeku da nga doon la mu far feñ Ndiaga amul lu mu lu mu financer campagne am. les question boobu da nga mën am lu la leer. Ah. <laughs> mais dama ni ya gis euh, ñun amu on a pas honte. Mm-hmm. xam nga de ce que li ñi def. Mm-hmm. ko ko mujjé mm-hmm. la preuve dañ ko def ay semaines mhm. Barthélémy Dias mhm. lancé ko mhm. Yewwi Askan bi lancé ko ba sax ay candidats ci zone bi sax ñu gis leen sax ñu koy ñu koy def c'est loolu la ñuy wooyee le financement participatif Obama quand il a voulu être président en 2009 aux États-Unis c'est ce qu'il a fait il n'avait pas le amoon moyen pour battre campagne amoon moyen dem sax benn état rek dafa campagne ci benn état n'est-ce pas donc a lancé campagne en 2009 en 2013 non laisse-moi continuer s'il vous plaît. Mhm. en 2013 également tamit nekk na président pendant quatre ans en 2013 amul lu mu la campagne dafa a fait un financement ñu ko ñu appelé. Mhm. des candidats au niveau national ils l'ont fait et d'autres vont le faire c'est-à-dire qu'il faut qu'on se il faut qu'on se décomplexe un peu le projet là ñu ko gëm c'est le meilleur projet pour Mboro ñoom dañ ci dugg seen koppar muy dërëm muy ñaar muy million lu ñu ci am seen xol attiré dañ dañ ko ci def nekku ci dynamique boo xam te ni dañuy gëmloo nit ñi dañoo am xaalis bu bëree bëree bëri ba manqué wuñu dara ñun léeg-léeg sax yàlla teg ñu ay natt yoo xam te ci ay jafe-jafe wàllu xaalis la dañu koy assumer ce n'est pas un défaut ce n'est pas un péché que nit ki am ay problème le projet là c'est pas mon projet dañ ma ko porté dañ ma ko porté loo donc ñi ma ko porté loo ñoo am xalaatu nañuy lancer la cagnotte pour que ku ci nekk ci nit ñi dugal ci li nga li nga am et c'est c'est comme ça maintenant quelqu'un qui le prend autrement c'est parce que il pense que moom mën na tànn la mer ci kaw mais mënu ko def ci souf et là c'est un peu bizarre <laughs> ah xamna ni dem mom xaw ma nu ma ko mën a dafa melni mom yaangi clash dal loxo ci kaw loxo ci souf tamit mom loxo ci kaw loxo ci loxo ci kaw loxo ci souf loolu mom est ce que doo ñu wax kan nga ko jox kan mom mom boobu non mais attends question yooyu amul solo man lima lima bo xere moy hmm. euh amuñu complexe hmm. deng nga parce que talibé bi nek ci mbéd bi sax di du caagi day yalwaan rek ñu ñu jàpp nañ ko war a xeeb wala dañu ko war a kii quoi donc te yalwaan bi ñuy def également tamit ñu assumer ko aussi mooy un an un projet dañu war a dem ci ay élection dañu war a battre campagne on se donne les moyens d'aller en campagne d'accord ba tey sax dañuy des ci côté relation yooyu ba tey xam nga dama la ko laajoon sànq d'une manière générale ni la yaag autorité yeeg ñëpp xiiroo la wala ngaayoo nga ne ma xiiroo ngaayoo sax xaju fi mais comme sànq wax naa la ko fii la ñu dëkk am nañu fi la ñu fi xam bi ñu jubee élection yi avant ngay ànd ak gox yu bees euh, jot nañ ci woowu bëy noonu la ko wolof di waxee ñu ni Ndiaga doon na essayé dem en coalition avec PUR jotoon na am ay waxtaan ñu bëggoon a xam ci lan la aboutir dafa échoué wala bon dafa échoué kenn xam en tout cas mu juleen àndu ñu bëggoon a xam nan la demee. waaw mais Moustapha c'est-à-dire que ba ci ba ci CP PUR sax dama na ci dama ci dugg laaj ñeneen ñoo xam te ñu ngi woon ci même cadre bi. Parce que je me rappelle que quand on a mis en place, ben nous mettons en place euh, le mouvement Moro Debout, en 2019 déjà, mm -hmm. l'essentiel des partis politiques, nous avons fait l'opposition en 2019. Nous avons fait pour élection en décembre 2019, Donc déjà, en décembre, en, avant décembre plutôt, au mois de juin, nous avons entamé une négociation avec des partis pour voir ça dans l'Union. Nous avons fait élection avec une grande coalition effectivement c'est le bokon même le PDS c'est le bokon Réumi. donc Bruna et ay parti yoo xam ne ñun ñoo parce également effectivement ça n'a pas abouti comme nous le ko xamee li aboutir tamit euh, a quand tamit euh, duñ ci craché des entités qui ont ne xam nañu leen li ci dëkk mais également ci euh, ci réew mi de ñun pour soutenir candidatures. candidature loolu yaakaar déjà euh, on a eu quand même le succès qu'on voulait peut-être qu'il y a ko eu ñu ko mhm. en tout mais l'essentiel a été que avons une coalition et puis une ngan et puis on en a eu une. ñuy pure. di PUR effectivement très poussé hein mhm. très poussé très poussé te te li au rec rek yaakaar naa ne après y a eu la coalition a eu Askenby qu'on n'attendait pas mhm. et que nous, dans leur logique moyens volontaires, volonté leader au niveau national et nous, c'est ce qu'ils vont vraiment implémenter au niveau local et pour nous tout au début on avait considéré que ne c'est pas un leader national décidé que candidat comme le président l'a fait avec la coalition Benno Bokk Yakar, d'autres également l'ont fait avec d'autres partis ou d'autres coalitions Nous, on a estimé que l'isolement Amboro, isolement de leurs appartenances politiques ñoy tok identifier sen ay ki pour dégager kan mo nek sen ay leader mais pas bon peut-être bu mel genre euh ordre la wala bon je sais pas comment je vais l'appeler injection bu jogé ci kaw bu tabbi ñom ñoom ñaa koy ñom mu la leen di lier il m'a semblé que lolu mo mel lolu mo xew et que ñun également on doit accepter cela ndax képp kuy def politique également tamit bu la nexé nga ni da ngay suivre sa ligne parti ta am ci également sañ-sañ ñun nak on avait considéré que ni Mboro la donc parlons Mboro buñ ko guéné Mboro peut-être on pourrait trouver des solutions locales mais internes yoo xamante ah et puis malheureusement ça n'a pas abouti donc on respecte également le choix des uns et des autres et ce que je voulais juste préciser mhm. moi j'ai de très bonnes relations avec Wapur. très bonnes relations avec le collège Cheikh Tidiane Cissé mhm. euh, euh, euh, quelqu'un que je respecte beaucoup mhm. par rapport à son profil mais également par rapport à sa courtoisie son élégance il est rare de le de politique

donc ce n'était pas dans une logique de majité, on a Moussi ñu et il pourra vous le confirmer. Moussi mhm. est ci man ak euh, Cheikh esprit de maanaam majité ou wala ça n'a jamais été un débat. D'accord. et ça je le dis face caméra quand même. nous ñu ñu ñu ñu ñu question bi rek commencé bëgg a ñu yaakaar naa ñu ngi jëm ci élection donc du ñàkk nii am nga ay yéene yoo bëgg si dëkk bi muy jëm ci wàllu programme comme lan nga xalaat ni boo ñëwee di nga si taxaw ci dëkk bi Mbor lan la ñu mën a séentu si yow. waaw seen jafe-jafe na. Mhm. léeg-léeg la nga dégg nit ku leen ni Mbor moom euh, daa mel ni euh, feebaru mag la rek fépp mooy métti c'est vrai mais fii métti nag dafa am lu ñu woowee ay parties vitales comme Vital TV. Mhm. ak parties yoo xamante ne peut-être ay parties vitales. Mhm.

principale préoccupation yi nga xamante ne askan mbooy ñu koy génne euh, li ci ëpp da ngay gis ni ci wàllu investiture da ci xaw dominer tuuti ak yeen xam ne dafa nekk ay besoins sociaux donc yooyu secteur lañ gëm entre autres yooyu la ñuy attaqué quand même à travers des un programme boo xamante ni gëm nañ ni y aura pas pareil ici à Mboro avec également des projets yoo xamante ni gëm nañu également y aura pas pareil ci keneen ku nekk fii ci candidat parce que nag li tax ñu war ko sañ a wax mooy mhm. euh, gëdd bi ñu jox mbir mi moo tax waaw dañuy jox mbir Mboro gëdd boo xam te ni dina jafe loo nga gis ku ku ko Mboro jaral wax yomb na mais gëstu ay problème Mboro utul ko ay saafara yaakaar naa ne buñ ci defoon ay waxtaan yoo xam te dañ koy dañuy së dañuy dañuy lëkkale ay candidat yaakaar ne loolu dina gën a tax askan biy voté xana xanaa nag ñu war a mën xam kan mooy le mair candidat aussi pour amu amul ça ne fait l'objet d'aucun doute que ni nous incarnons le meilleur euh, candidat euh, ñun ñooy vraiment la personne wala boog euh, l'équipe

tous les neuf candidats dañuy nekk neuf chômeurs chômeurs yoo xam ne dañuy xëy di ut dañuy dañuy wër di ut liggéey euh, liggéey bi ñu ut mooy liggéey surga ñu nag léeg-léeg ñu ne askan bi ñoom ñoo xam rek euh, kan moo pare pour ëllëg nekkalee seen surga ak kenn moo ko parewul quoi ñun nag gëm nañ ne si yooyu yëpp bu ñu ko xoolee euh, ànd ak effectivement la coalition gox yi bees mooy dëgg dëgg dëgg ànd ak pour intérêt Mboro d'accord yaakaar naa ni euh, loolu mooy li nga xam si moom la ñu prévoir comme suñu ay question ngir laaj ko kii di monsieur le maire Ndiaga Ndiaye kon monsieur le maire ak nañ ci cëppaandoo émission bi dama lay bàyyi rek euh, nga def sa dernier mot. waaw dernier mot bi merci beaucoup rek di la remercier ci euh, invitation bi Moustapha di également nuyu ñi nga xam ne ñoom nga seqal liggéey bi ñoom ab Ablaye. Mhm. ñoom Abibou. Mhm. di am mbégte lool nag nekkaat sa invité sa sa invité gannaaw bañ ko fi nekkoon ay jamono. Mhm. ci ginnaaw pour dernier mot moom dañ naan rek dañuy. wax wa Mboro benn bis lañu yaakaar day mooy bis bi nga xamante ne ci république bi ñu dund muy Sénégal ñun ñëpp dañoo yem ndaxte bu weesoo yooyu bis jafe nga gis Sénégalais yem ci dëkk bi muy bisu élection ndaxte damay far di wax naan le président Macky Sall ak dayo bi mu am di kilifa réew mi bu boobaa le 23 janvier bu demee Fatick di voter Matarba nga xamante ne mooy candidat benn xob lay bàyyi ci urne bi Abibou mii ma jàkkaarloo ak Ablaye bu demee également di voté ñoom it benn xob la ñuy bàyyi seen candidat ministre bi xalif bi ingénieur bi chauffeur bi euh, baykat bi jàngalekat bi chômeur bi ku ci nekk ci ñoom bu demee ci jour élection bi benn xob lay bàyyi kon nag boobu xam ngay bàyyi muy bi Macky Sall di bàyyi ak keneen keneen di bàyyi kon defe naa ne kon yemale am na foofu kon kon ba na dañuy ñaan askanu mbooloo rek buñ ca eggee rek ñu def le meilleur choix xam ne li ñuy def tënk day leen di tënk ci juróomi at yaakaar loo xam ne da ngay def ba pare mu tënk juróomi at bala ko def bala nga ko teg ci xam-xam ci ak yaakaar te loolu nag bu ko askan bu ko askanu mboor defee ñun duñ ko rëcc incha allah beneen aussi tamit nga may ma ko rek ma remercier surtout euh, la coalition gox yu bees mooy tous les leaders yi nga xam te ne ñoom ñoo ko composé Aboubacar Diagne si sama grand frère ak Ibrahima Kane di sama grand frère mais mes amis également yi nga xam te ne Ndiaye Papa Mohamed Diop ak Ndiasse boobu di remercie remercier bu baax esprit de dépassement seen grandeur seen également bëgg Mboro mais également des militantes et des militants de la coalition Gox Yu Bees ñu ngi def liggéey bu am solo boo xam ni amul fay mais également les sympathisants ndax léeg-léeg nit ki dina la wooye fu nekk pour sa numéro woo la di manifester vraiment ni mu lay jàppalee yéen bi am ci et te dara loo ko defal donc ñoom tamit occasion lañu am rek pour mën leen remercier di leen jaajëfal di ñaan élection yi jëm mu gënee ci sama jëm ji gën ci mbooro ah yal na yàlla sotti waaye bu ci manqué ci kenn rek yal na yàlla dàqaloo def li gën ci mbooro merci moo nekkoon kàddu yi ñun aussi euh, ci turu Vitale TV ñu santal bu baax a baax a baax ci disponibilité bi yaakaar naa ni protocole bi jafewul bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu la juste proposer l' invitation ci nga ñu ko yombal donte xam na ñu jamono ji moom xawoon a xat donte ni xam nañ ni waaw waa <laughs> xam nañ ni instant bi moom ku leen bëgg a gis jaw sama leen di fekk ci kër yi na na na doxante rek yaakaar naa dina daje ak yéen donc kon bu ngeen bàyyee seen yitte nga xam faratal la bokk ci yéen accordel ñu temps dañ leen ciy sant bu a baax kon mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen saxoo di seen bi yaakaar naa bi waxoon naa ko émission moom buñ ci gisul woon seen intérêt yaakaar naa duñ ko konne kon nii lañ koy defee saa ne di leen invité nag à ce que ngeen abonné encore ci chaîne bi gis nañ yéen a ngi ñëw waaye lu ngeen ñëw rek du doy ndax yaakaar naa vital moom fii la affaire bi ah comme ñu koy waxee wala sama collègue bi ni mu koy waxee Lamine Samba fii la mburu mi di tànge te fii lay xoyam xoyamee di leen invité bu baax a baax ngeen abonné te di bës cloche bi jërë ngeen jëf